tey nag ñu ñëwoon fii ci Rufisque lancé fi opération bu am solo boo xam ne nii dafa jëm ci kër yi ndax bi nu bi bi mbas mi commencé ba léegi dañoo gis ne message buñ xam wax nañ ko nit ñi da nit ñi dañoo war a raxas loxo seeni loxo ak saabu ndox ak saabu kër yi dañoo war a désinfecté table yeeg objet yi nii séddoog yëpp lool ñu koy def ak ak de l'eau de javel mais loolu dañoo gis ne doyut donc il fallait que ñu dem ba ci kër yi mottali loolu mottali gi mooy ñu mën a leeral nit ñi expliquer leen nit ki bu dee raxas loxo ak ndox ak saabu pour mu mën a am bénéfice bi mu ci soxla dafay am nu mu ko war a defee. donc loolu dana am ay démonstration ci kër yi agent di d'hygiène yi dana dugg ci kër yi ànd ak bàjjenu ngox yeeg président association euh, euh, ASC yi ak relais yi. ñu nit ñi fàttali leen nan lañ war a raxasoo loxo. pour que véritablement virus bii nga xam ne moo war a jaar ci loxo man ñoo wàll euh, loolu man ko pratique boobu man ko man ko man ko fa fagaagal dañ leen di wax toujours ne aussi surface yeeg euh, commande télévision yi nga xam ne dañ koy jokkalante téléphone yi euh, lu mel ne loxo yi sonnerie ci kër gi yooyu tamit nga xam ne suñu loxo day bari lu mu ciy dem ku ñëw ku ne sa loxo daf cay jaar te kenn ku ne mën ngaa indaale virus bi yooyu dañ ko war di désinfecter régulièrement te loolu mën nañ koo def ci biir kër def ko ak eau de yooyu nag moom la ñuy jàngale bu ñu demee ci biir kër yi wan nit ñi dosage yooyu nu koy defee assister leen xool nan la ñuy raxasoo ay loxo luñ ci war a modifier ñu modifier ko muy liggéey boo xam ne liggéey bu bees sàq la boo xam ne danga koo lancé ndax gis nga pandémie bu dee dox jamono jone ne da ngaa war a xool ban stratégie nga jël pour mën a atteindre population yi solo rek. Moi, li les pratiques essentielles familiales que nous avons mën euh, fonk